boo amee hémorroïde da koy faj bitil bi mooy traitement bi international partout dans le monde foo nekk mën nañ la koo livreur jëlal kuddu nga naan soo naanee nga xaar quinze minutes boo xaaree 15 minutes nga seq ak sa soxna dinga nga sëy ba sonn sëya sëy ba doyal te doo sonn dinga sëy une heure de temps doo sonn doo palpité wu tayit faj gi mu lay faj ci biir raxas sa deret ba mu set lii lu yéemee ngi ci biir amul benn effet secondaire gàncax yépp diggante Burkina la ñaame jëlal ma nga diw lan ngay diw awra bi awra ban awra góor bu fekkee ne sa awra dafa am ñas-ñas wala muy dellu jëlal nga jël dina ko guddal dina ko dijjal tayit bu amee feebar da koy faj lépp defaale nañ ko ci gàncax yi ci biir amul benn effet secondaire lan ngay diw awra bi awra góor diwal ma suba diwal nga diwal ma ngoon te bàyyi leen jàpp seen awra yi di ko diw ba pare jël silib bu dang nga sol ko loolu da koy delloowaat yow da ngay traité te une lañ la may jëlal nga diw nga sol sa caleçon. laata ñuy dooru xibaar yi ñoo ngi jéggalu ci baat bi xaw a soj xaw a sonn tuuti moo ko sabab. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd pap Ousmane Sakho moom nag ma nga woon ca Kivili Kivili nag ci réewu France la nekk waaye club boobeekat contrat bi leen lëkkale woon ak doomu Sénégal bi dafa jeex tàkk jamono ji nag dem na ci réewu Maroc club bu ñu naan Raja de Casablanca foofee la Pape Ousmane Sakho xaatim contrat kon ginnaaw mbay ñaa am na beneen doomu Sénégal bu dem ci réewu Maroc mbay ñaa ci ca Wydad la dem waaye bu dee Pape Ousmane Sakho moom ca Raja nekk ca Casablanca la xaatim contrat kon réewu Maroc am nañu ñaari doomu Sénégal yu fa dem bees muy mbay Niang ak Pape Ousmane Sakho ci Pape Ousmane Sakho ak këlëbam bu bees jël beneen doomu Sénégal kii mi ngi tudd Lamine Camara moom nag weekend bale ñu génn dafa amoon ab blessure ñëpp nag tiitoon nañu ndax dina bokk ci match bu ci diggante AS ko ak Barcelone am déet waaye dina ci mën a bokk comme ni ñu leen ko waxee woon waxoon nañu leen fi ne match boobee mën naa am moom mii di Lamine Camara mu bokk ca list bi génn na bokk na ca tey ji Barcelone AS Monaco bu Krépin Diatta ak lamin kamara la ñuy fekki ñaari doomu Sénégal yépp nag ñoo nga ca list ba kon nañu leen ñaanal ñu doxal ca match boobee. ñu jugee ci Lamine Camara te di ko ñaanal wér-gu-yaramam jëm kanam dem ca waa Dinamo Zagreb ñoom nag dàq nañu ki leen doon tàggat ginnaaw bi leen Bayern de Munich wullee wulli yu miti 9-2 match boobee Ligue des la sokoloon ki leen doon tàggat dàq nañu ko moom doomu Serbi la mi ngi tudd Sersi Yakirov waa Dinamo Zagreb téqalikoo nañu ak moom sabab bi nag bokk na ci bit yu bëri yi nga xam ne jël na ko keroog bi muy jàkkaarloo ak Bayern de Munich neuf deux la match bi jeexee ñu jugee ci waa Dinamo Zagreb ak ndogal loole ñu jël ci Sersi Yakirov dem ca waa AC Milan ñoom nag ki leen di tàggat tudd Paulo Fonseca ëllëgëm mi ngi waaj a taq suuf ca club boobee maanaam mi ngi en danger li ko waral moo di doxalagut ak waa AC Milan Gazzetta dello Sport nee na soo moytuwul nag match yii di ñëw bu ca doxalut dinañu ko dàq ndax kat bi ñu dooree saison bi ñoom waa AC Milan ak tey jii jongante nañu juróomi match benn victoire képp la ñu am ñaari défaite ak ñaari matsu nul loolee tax na nag ëllëgam mi ngi waaj a taq suuf ca club boobee match bii di ñëw Inter la ñuy jàkkaar lool su fekkee nag gagné nañu ko ca match boobee mën nañu ko dàq moom Paulo Fonseca jamono ji waa AC Milan ñoo ngi bàyyi xel coach yi may waaj a lim Mauricio Sarri Edin Terzic ba ca Thomas Tuchel ñetti coach yooyu yépp jamono ji waa AC Milan wa ngi leen di bàyyi xel bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport match bii di ñëw nag Inter la ñuy jàkkaar te derbi bu mag la ñu jugee ci Paulo Fonseca ak ñàkk a doxalam dem ca waa Manchester City ñoom nag seen àtte bi door nañu ko maanaam procès bi door nañu ko dafa am ay mbir yu ñu leen di jiiñ mu di quinze violation maanaam téeméer ak fukk ak mbir yoo xam ne ay mbir yu lëndëm la jëm ci fair play financier moom la ñuy jiin mën Manchester City mbir mi nag àtte bi door na bu ñu sukkandikoo ci télé football loole ñuy jiiñ wa waa Manchester City su fekkee lépp dëgg la bépp compétition boo xam ne ñoo nga ca dañu cay seppi seeni loxo ba mu set wicci yemul ci prime Premier League bi ndax télé football nee na su fekkee li leen di jiiñ dëgg la Ligue des champions bi dañ leen ciy génnee Coupe du monde des clubs dañ leen ciy génnee FA Cup dañ leen ciy génnee ba ca Carabao Cup maanaam compétition yi ñu bokk yépp su fekkee liñ leen di jiiñ dëgg la bépp compétition dañ leen cey génne ñoom waa Manchester City bu Pep Guardiola kon nag jamono ji bu ñu toogee ci nen mën naa bañ a toj ñu jugee ci waa Manchester City ak mbir yooyee ñu leen di jiiñ jël doomu France bi tudd Jules Koundé bu ñu sukkandikoo ci Espoir waa Chelsea dañu ko bëgg te ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax Chelsea dàquñu waxtaan ak gone gi bu ñu juboo ak moom jéem ko jëlee ca Barcelone bu ñu yeggee ci weeru janvier maanaam mercato bii di ñëw te waa Chelsea jàpp nañu ne su ñu ca defee soixante millions d'euros waa Barcelone dina leen ko jaay jamono ji sport nee na waa Chelsea ngi càmbar ay mbiram te ñoo ngi ciy xalaat bu baax loolee la sport xamle. ci Jules Koundé ak bëgg-bëgg boobee waa Chelsea am ci moom jël doomu Allemagne bi tudd Florian Wirtz moom nag ma ngay football ca Bayer Leverkusen bu ci ci sport build waa Real de Madrid ñooy favori ngir xaatimal ko contrat maanaam ngir jëlee ko ca Bayern de Munich club yi ko bëgg nag bari nañu lool bokk na ci Barcelone ak Bayern de Munich waaye sport build nee na waa Real de Madrid ñoo gën a jekku ngir bu saison bi jeexee ñu jëlee ko ca Bayer Leverkusen jugee ci Florian Wirtz ak bëgg-bëgg boobee waa Real de Madrid am ci moom jël doomu Brésil bi tudd Endrick moom nag Carlo Ancelotti dina ko récompenser maanaam dina ko fay Carlo Ancelotti mooy tàggat Real de Madrid gone gi nag ak njàmbaarteefam tax na Carlo Ancelotti bëggu koo fay match yii di ñëw mën naa am mu départ titulaire Real de Madrid di jàkkaarloo ak Espanyol de Barcelone su fekkee match boobee départ ca titulaire bu Real de Madrid di jàkkaarloo ak Alaves mën naa am match boobe mu départ ca titulaire li ko waral moo di njàmbaar ndax premier match liga mu dugg dugal premier match ligue des champions mu dugg dugal njàmbaar googe mu àndal moo tax Carlo Ancelotti bëgg koo fay nee na match yii di ñëw mën naa am mu départ lu ko titulaire loolee la aas yéene kaay xamle gaa ñi xabaar yi foofula la